Assalamualaikum. No to do. Wax no to do. Kujja. Hein? Kujja. Binta. Binta naka? Si. Binta si. Ah. Sa papa num do? Binta si. Sa papa lawa nom to do? Fode. Fode. Fode naka? Man. Ya lu lay meti? Dara. Dara meti Okay. loy metti waxal ak ñu xam nga ñun ñun ñoy wa an taxo ñu di ñun say xarit lañu lan mo lay metti xuja wuyu ma lan mo lay metti dara dara metti ko li ma waxon yo dang non sa bir bi muy metti sa bir lan mo lay metti nga ne bir lan mo nek ci bir bi dara luy metti bir bi yaa xuja waxal ak man lan mooy metti biir bi. sama biir waay mii. metti biir bi laa bëggoon nga wax ma ko kay. dara. dara méttiwu ko. bisimilah yaa njéeme. Uja, kan mau lihat lihat létt yi rafet na de tamit hmm? Mana domu itu? Kula lihat Saya. Saya. Wah Wah sa yaay waaw ini kan nga coba bëgg a kholen, dan leen isi kholen, isi kholni. kan mau finex nekk ini. xarit ane ini kan mau finex nekk sa hangman. doo hangman hmm? kan mau finex nekk Ken kenn. man xool leen waa xool leen xool man maa bëgg a nekk sa man Adama laa tudd. waaw man di Kondour di bàjjani gox quartier jàmm gën euh, hôpital Bousso di bàjjani gox di quartier jàmm gën man maa leen doon woo ngeen dimbale ñu te Pas tax parce que kii di man dañ ma samp jàmm gën pour ma doon bàjjan ma suma yenen natango léegi dañ ma wax ne may wër koñ bi suma fa gisé lu démé ni dama koy wax def ci suma doole ak suma mën-mën ak suma katan. ki di xujamaane jamané yalla ko indi ci koñ ba dekkut ci koñ ba dafa wër ba juux ci fa dekk tok ci all ba mu tok ci all ba ñu diko gis muy wër ñu diko gis muy wër fu mu tëddee rek ñu ooma ne ma kaay bàjjani gox ma ñëw yóbbu hôpital def suma kéemtalaay kàttan jamono yii may leen di ooyee nag xale yi dañoo gis mu feebar di tëdd ko jóg di tëdd ko jóg ñu ñëw ne ma xujja dey meer Ndour xujja dafa ne ci mat ma ne leen mat ñu ne ma waa ma ne ah loolu kañ la ma daal di dem bi ma demee xool ko ma ne leen kii dey matoogut waaye na xaar leen ma oo suma docteur ma jël suma téléphone oo madame Ndour sage-femme quartier jamm kan bima ko ooyee wax ko kaa bi ni mu demee yëpp mu ne ma maa ngi Kaolack waaye bu suba dana ñew bu suba nga oma ba seet oowut ma ba 2 heures ci goudi mu oma, mané ko wa baxna kon bu suba dana def tout pour indi ko ci hôpital bi ma xey dem ak mom naxanté ak mom bo mu génn ci ñax moomu dugg ci moto bi ñu ñew hôpital bi ñewé hôpital madame Ndour xol ko visite ko def li war ci mom yop bindal ma kayit jox ma ma dem hôpital bu ma bi ma hôpital bu ma ñu defal ko analyse defal ko écho jox ma ay kayitam yépp jox ma garabam ma ñew bi ma ñewé indi garab yi dal di ko nandal mu naan mané ko togal fi suma kër mu bañ wat ci ñax mam fa fa ko sasa yi def ko lu bon mu wat fa ñu wax wax wax mu bañ mu ne foofu lay nekk légui bi mu nekkee foofu ñuy laajté ba yalla def yalla bolé ñok Ayda Jaane mi ci radio bi tay ñu ne Ayda xam na ñooñu ne Dakar bi ma demee ma wax ak Aida mu ne ma waaw loolu de temps yaa di am na fi ma ne ko ah mu ne ma waaw ndax ku mel ni yoore lañ doon seet mu bu gisee kaa yi ma ne ko waaw kaa bii nag kaa kaa bu difficile la léegi ma ànd ayda Aida won ko ayda Aida xool ko ma indi kayit yëpp jox ko Aida mu ne ma léegi nañ leen woo Kaja mi peccir gu Aida la Kaja mi Kaja Seydi mu ne xaaral ma oo leen Aida dafa xëyi rajo Aida leen ooyee wax ak yéen ngeen ne ko waaw léegi d'accord danañ ci wax léegi bi kii ayda da ñëwee daal di leen oowaat bi mu ñëwee ma ne ko ah fi mu ne de xujja man réer na ma sax ñu dem barki démb bi ñu waxee yéen ba ngeen ne da ngeen ñëw ci leen dugg ci quartier bi wër ko wër ko wër ko ba gis ko biñ ko gisee ñëw bi ñu waxee yéen ci ngeen ñu tontu nañu dem leen seet ay mbokkam ma ne ah mu ne waa ne Ayda mu ne ah ma ne ko man de am naa benn rakkam ma magam bu ñuy wax maam biram mook sama doom sama caan mi ñoo bokkoon ca fee di liggéey di jàng mu ne ma ma ne ko waa ñu daal di oo maam biram bi ñu ooyee maam biram xamal ko li ngeen ñu wax yëpp dégg nga maam biram d'accord ci loolu bu ngi nii taxaw bi mu d'accord ñu ne ko léegi nag da dem oo sa yaay mu ne suma yaay lu ma wax rek loolu la wax parce que sama yaay man la jox kàddu ñu ne waaw ñu ne waa léegi nag ñii dañuy dimbalee nit ñi te yàlla tax yàlla rek moo leen yëkkati yàllaa leen ñor yàlla moo leen ñor moo leen yëkkati looloo tax ñu ñëw pour wax leen ko pour ñu yóbbu seen doom jii di Khoudia Mané man bàjjani gox na di yaadi di konduur bokkuma ak moom ay da bokkut ak moom lenn Kaja bokkut ak moom leen na parce que moom tukkulóor la man may séeréer kon ñu ni tamit yàlla rek moo ñu ñor yàlla la ñu liggéeyal kenn fayuñu dara dañuy def te yàlla tax yéen tamit ngeen di def te yàlla tax. Koumpentoun Baaliw euh, fii nga xamante ne fi lañ ñëw fi la malaat bi doon fanaan boo xoolee diggante kër yaayam ak fii ni mu soree waaye gis nga fii rek la ko jaami yàlla yi daan fekk di ko sàkku am na koo xamante ni sax wax na ma ni suñ ko mësaan sonal fii ba mu sonn day mujj jóge fii dawaat am na beneen bërëb boo xamante ni moo gën a sori boo xamante ni tattal nañ ñu fa xam nga ni ku ànd ak xelam du tëdd fii ñax yi sécurité bi ah dafa nekk lu metti ñun daal association taxawu ñu di xam ngeen ne ay ndaw lañ te suñu kattan bariwul yéen ami internet yi ñëw leen ñu ànd jàppale xujja te yàlla rek tax ngir mu retrouver wu waat ak sagoom ngir yàlla may ko ay oom yu sedd ba mu delluwaat ak sagoom gëm nañ ni duñ ci wéet ak yéen te yàlla rek tax lii metti na trop vraiment lii xew ci ñooro metti na trop yaakaaroon naa ne yu mel nii du am sax ci dëkku àll yi ndekete ci dëkku àll yi sax la gën a bare wax dëgg yàlla metti na trop. dañu ma nawtal yóbbu sama xel sëf ma ci doj génne ma sama biir kër sama njaboot takkale maag sama famille lu ma gode gode ci mbedd mi laay fanaane ca yàlla waaye wàlka sa xel ci yàlla te xam ne ëllëg yamal xiyaam jëf ju baax rek ay tax nga jàll yow mi ma liggéey ba ma dox toog sa biir kër ut sa njaboot te xoof maa ngi nii torox def la ay mbokk ndax feebaru xel bi ma yàlla teg tax ñu bedd ma génne ma seen biir ma nekk ci mbedd mi di dox seeneen allée yow lii lépp yaa ma ko teg maa ngi nii xam ne tuma lu nëpp wala lu foox lu yeng wala lu jub yow sama waay bu doomu jàmbur ba noppi di ci koñ bi tux boon seytaane mi leen jay ba tax ngeen sëpp la ci doj bu ëllëgee dina leen fa tey leen mëy bàyyi leen ak seen bopp ginnaaw bi nga xamante ni fekk nañ malaat bi ci ay dëkkandoo yoo xamante ni ñoo ko bëggoon a dimbali tax ñu téye ko waaye fañ ko jëlee sax nekkul woon mooy dëkkuwaayu cosaanam fii ñu ñëw nag mooy dëkkuwaayu cosaan gi fii nag euh, wax dëgg yàlla tumuraanke gi foo ko natt weesu na ko. ndax boo xoolee li ko wër lépp ñoom wax dëgg yàlla yàlla dimbali na leen sax mën nañoo am luñ suturloo waaye xam naa ni sunu jur wi lu ko mënti dal rek wax dëgg yàlla ñàkk gu tar feeñ na ci bu baax a baax ñu nekk ci dëkk bi ñu nekk ci Nioro maire yeeg bàjjanu gox yeeg nañu sumb ab liggéey ngir dimbali sunu yaay ji xam ni li ko yàlla teg metti na lool amoon borom kër mu génn àdduna waye tay yalla bàyyi koog njabot tay ji muy dund lu tar ba tax ñu bare bare sax di wax ni mom daf ci jëlee sax am ci tawatu wéré di xel waaye dinañ ko déglu ya boy na nga def. yow no tuddu man Binta. Binta nan. Binta si. fi ñu ñëw moy fan. fi ñoro kër gi ya ko mom xar kër gi. Hmm. wa man maa ko moom kay. yow ya ko wa euh ñaata nga jëndé won terrain bi. téere bi jëndu ma ko woon dañ ma ko mayoon. dañ la kaa mayoon. waaw kañ nga commencé dund jafe-jafe yu metti yi. ah su ma jëkkër yi bu mu ba tey. Mm-hmm. su ma dund su ma liggéey rek su ma xëyee dem liggéey su ma amee ma ñëw toggal suma doom yi. Mm-hmm. ma santee fóot ma indi fóot ñu fay ma. Mm-hmm. ma dundal suma doom yi. loolu laay def <laughs> <laughs> ah! ndeysaan yaay lan ngay jooy bal lan ngay jooy sa xel ci lan la dem ba nga jooy leen bàyyi leen bàyyi leen yaay sa ci lan la dem ba ngay tuur ay ronkoñ damaa xilaat aduna rek <laughs> rek suma xol bi moo tax ma joy hay bay bo yam san ya boy fi ngeen nek ndax yéen ngi lek ba sour waaw ah ma luma luma am daal moom mom lay lek ndaysan comme ni nga xamanteni non lañ ko déggee mom wax na ni euh, kër gi moko mom waye dekk ndoy xamal nañu ni sax dañ ko ko abal mu nek lu metti yaay lan nga gëna bëgg tay ji ginaaw bi nga xamanteni ni nga ni sa dom ji dañ ko tek mu wann lor mu metti lool nan nga ko dundé nu ma man kay dama leen sant dama leen sant rek gërëm leen. waaw sant naa leen gërëm naa kii li ñëw pour jàppale ma sant naa leen gërëm naa leen. sant nañu gërëm nañu waa koñ bi sax ñoo ngi tuur ay xéewal waaye bëgg nañoo xam ndax démb ndekki ngeen. ah dax ñu ngi ndekki ah léegoo rek ma am lu ma jëndee ndekki di léegoo rek ma wax leen xaaral su ma ñëwee su ma jaayee ba ñëw ma fay. ngeen jël fii ndekki su ma ñëwee fay ko. tey jii nag añ euh, tey jii nag gisaguma ñu taal fi taal fi añ de tey da nga toog. añ moom taalaguma ko. am na fi. amu fi kay. amu fi déedéet. tey sunu ñëwul woon ndax di nga am foo jëlee loo añee. du ma ko am sax de. day metti lool ci jamono bu nekk état Sénégal war a gëstu ndaw yi nga xamante ni ñooy ànd taxawu ñu wéri di te yàlla tax ñoom de fépp fu ñu dem bu fa xiif nekkee daañu fa jëlee xiif bi teg fa ak regg bu fa tumuranke amee dañu fa fexe soppi dundin beeg taxawaay bi mu nekk lu am solo association taxawu ñu wéri di nekkul ci benn ginnaaw benn parti politique nekkul ci dara li mu nekk rek mooy sàkku ngërmandey yàlla képp kuy mën ngërmandey yàlla association taxawu ñu wéri di tàllal nañ la loxo daañu génne xéewal gu tolloog fukki junneeg juróom te yàlla rek tax jënd ci ab dund ndax bëgg nañ bu ñu fi jugee kat bañ fee bàyyi xiif bañ fee bàyyi mar ñoom Adama Sène ñu ngi ci entretien général di defar ki nga xamante ni moom moo di xujja xujja maane incha allahu rabbul alamin bu ñu ko defaree ba pare daañ ko teg ci ambulance bi yóbbu ko fële ca diwaanu Ndakaaru Njaay dimbali ci yaayam te yàlla rek tax ndax nii mu wanee lor fii mu nekk tey bu ñu ko dimbaliwul rek mën na fee jëlee ñàkk ba ñàkk bakkanam te tey xam nañ ni jigéen ñu bari ñu ngi ñàkk seen bakkan bu ñuy am doom ministre de la femme et de l'enfant bu ñu déggee lii may wax nañ ñëw appuyer association taxawu ñu wéradi man nag tey li tax du jooy mooy yàlla dafa maa jox lu ma ko jox loolee tax mooy seral sama xol ñu ànd ci terrain bi dem jëndal ko ceeb ak diwliñ te yàlla rek tax. sama xel ma ci doj génne ma sama biir kër maam sama njaboot takkale ma sama famille lu ma gode gode ci mbedd mi laay fanaane ci yàlla waaye wàggal sa xel ci yàlla te xam ne ëllëg yamal xiyaam jëf ju baax rek ay tax nga jàll yëngu ma liggéey ba ma dox toog sa biir kër ut sa njaboot to doo dox ba xoof maa ngi ni torox def la ay mbokk ndax feebaru xel bi ma yàlla teg tax ñu beddi ma génne ma seen ma nekk ci mbedd mi di dox yeneen allée yow li lépp yaa ma ko teg maa ngi nii xamatuma lu nëpp wala lu faax lu leng wala lu jub yow sama waay Mum tawatu wéradi xel mu nekkoon ci mbedd mi ah yàlla defit ñi nga xamante ne daanaka lu baax moom dara luñ ci jublu amu ci fekk ko ci mi tooñ ko mu nekk lu doy waar Baye Pape jël ko indi ko ci kër gi dénk ko soxna Njéeme Siise muy ñaareelam mu nekk ak di ko sang di ko solal yére di ànd ak moom hôpital di ko ba yàlla defal ko jàmm soxna Ndiémé moomu ñu ko dénkoon ay waajuru xale bi ne nañ ko tuddee xale bi moom mu jël tur wi delloo ko magam soxna May mi awa Pam ña kon lu rafet la loo xamante ne nii ñun suñu xol da cee sedd ndax wax dëgg yàlla ñoom seen ànd kon wane na ne ànd bi ñu ànd dëgg la ndax bu demee wutoon noonu Ndiémé du jël tur wuñ ko war a tuddee ne ko tuddee soxna May sama mag. mu nekk liggéey bu rafet bu mu ci def nag soxna Ndiémé donte duñ ko gërëm ndax dafa bokk ci association ànd taxawu ñi wéradi bi nga xamante ne Pape Niang mii mooy li tey di taxawu ñi nga xam am xel ci mbedd mi. kon bu jëlee nit ci mbedd mi indi ci kër gi ba lii am tey keroog démb daf maa woone ma nañ dem wuti xarum tudd bu doon keneen a mën naa dem sax jënd xarum fukki junni wala fukki junni ak juróom waaye xarum fanweeri la ko donte àndut ak sax ak xelam waaye bëgg na koo xamal ne ci société bi nga bokk mu liggéey bu rafet bu ci Pape Niang def xëy baas togg ay laax xottil ko moom ci boppam ñaari sol pour mu solu di ko wan ne ci nit ñi la bokk te it ci nit ñi la bokk li may wax mooy ñi nga xamante ni yàlla na leen ñii nañ xam ci ñun la ñu leen ñu ci mbedd mi ñu leen di def yenn yi surtout jigéen bu dee sax yenn yi dal ci mbedd mi waaye jigéen ju toll ci jamono bi nekk xale toll ci sa buntu aduna lii dal la ñu bàyyi la nga génn ba mu la ci mbedd mi rafetul te ko romb mu am wéradi xel tëdd ci mbedd mi ci kër la génne am na ay na ay mbokk xaj sax ñu koy romb pourtant bu doon ku poosam diis de duñ ko génne wala bu génnee fu mu dem ñu wëri ko waaye xaj na li mu àndut ak xelam mënta jariñ waa kër gi moo tax ñu bàyyi ko mu génn pourtant mënoon nañ ko fat waslu ci suñu borom am xelam même bu ko ni waslu ci koy gis ndax lolu moy liggey bi dañuy jaamu yalla ci jaamam ñi ndax ñom ñi ñak xel ñun ñi am xel ñoleen wara kon bu Baye pap taxawee lu melni ba liggey ci liggey bu rafet bi andi fi nit tay bam amé fi dom nek ci bir kërëm daan tëdd ak guddé ak bëcëk soxna soxnaam di fanaan ak mom ci lal guddé ak di diko sang wutal koy yéré lu ne mu di ko défal defal ba tay mu démé ni buñ ko dippé soxna may warna kon wax dëgg rafet lu nañ ki bi di santit wa and taxawu wéré di ñi nga xamante ne bi yépp ñom ñoo ci and ak Baye di and ak moom guddeeg bëccëg di nekk ci terrain bi xol malade yi nga xam dañoo tilim amuñu luñ sol xif amuñu luñ lek seeni karaw bari ba mënuñu dox mu dem wat ko dag seeni we sang leen bañu set jënd ay yéré yu rafet jël ko solal leen ko ñenn ñi nga xamanteni yalla def na mëna wër mu yobbu leen ci hôpital bi di leen sifur and ci waan taxaw ñu wéradi di génn xaalisam di ci def mo taxaw ñu ba ñoñu yalla defal leen tawfiq kon bëgg nañ daal ngeen ñaanal bay pam Niang ak ñi mi andal ñu ñu seen liggéey bi ñu commencé yàlla may leen ñu eggale ak seen sago liir bit ñu ñaanal ko suñ borom kii ñu ko dippee mu dem ba fekkee njariñam di gërëmit suñu jëwrin ji toog di mu Moustahine jaañ nekk suñu mbokku taalibe ñu bokk ak moom lépp lu ñu xew la day ñëw toog ndax day wane ne ci la bokk di gërëmit suñu sang si Idrissa juuf mi nga xamante ne mooy suñu sëriñ tey tax mu ñëw teewoo fi taxawaayam ndax dafa nekk ca côté Saloum ñu koy ñaanal moom ko ndax tey bari na ay malade yu nu jël fat leen di leen faj ca daara ja la ñu nekk fa la ñuy lekk fala la naan di liggéey ci tool yi di tëdd fu baax di sangu ba set di sol yére yu baax te bu doon toon ak moom dinañ am ay jafe-jafe ndax du ñu am fu ñu leen dugal moom mu am këram ca Saalum nañu ku ngeen jàpp bu waree wér na ngeen mu ko indil fii dinaa ci jàpp ba ngeen xam ne lii ngeen di liggéey yàlla ngeen koy defal kon moom it ñu koy ñaanal suñu borom gën koo dëgëral lislaam suñu borom defal ko ci lu kawe njortam ndax xam nañ ne moom bu fi yàggee rek lu baree bari dina leer di jaa jëfal ñëpp nag wax dëgg yàlla xool dafa sedd lool ci bis bii di ñaanal soxna may mu ndaw yàlla may ko gudd fan ba ñu fekkee lu baree baree baree bari di leen jaajëfal bu baax a baax di jéggulu nag ci seen kanam gi ñu jël kàddu waaye mëntoon a ñàkk ñu feeñal liggéeyu ànd taxawu ñu wéra di liggéey bu rafet bi ñuy def noo ngi leen di balwaq bu baax a baax a baax a baax yéen waa jàkk xam ne yéen a ngi toog noo ngi di balu àq di leen masawu ci taxawaay bi eh, moo tax ñu gën leen ma toogaay bu yàgg bi mais borom mbokk daal moomul boppam eh, pam ñaar bu ko neexoon tey bu sañoon tey na tudd nañu ba dem waaye comme borom mbokk li xaaraat yooyu rek moo waral ñu yàq ba na nga eh, li mbay wax rek daanaka danaa ci jël wax yu bari muy sant ngóor si pam ñaar mii koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla may ko fan gu dëgg wér xam nga dem fekk ko xam ne ki ay bokk mënaluñ ko dara sànni ko ci àll bu muy taxawaalu ba leneen fekk ko fa nga boole ko loolu lépp ñëw ŋàbb ko di koy dundal di koy faj ba mu am gone nga jël sa alal def ci teral ko ci kanami bokkam yellooti jël bi nga xam ne bii moom ab aawam la mu teelu tuddee ko ko kooku vraiment ak baax mënu ko raw ma dara mais ñi fe ñi nga xam ne mën a luñu seet bopp dara ci wéradi nga jël leen yóbbul fajjal ba yàlla seen sago rek loolu moom peew yàlla rek nga ci am incha allah xale bii nag wax dëgg yàlla li ci li ma gis tur yi yomb ko ndax ku fi kii indi mu nitati ko moom moo koy jël mu koy dóor muy muñ mu koy xusi muy muñ di ko saaga muy muñ mu topp ci moom bu génne ci mbedd mu dem dogale ji ko lu luñ teg suñu bët jiital ko andiwaat ci biir kër gi xam nga loolu nag liggéey la boo xam ne ku la ko defal te tur yi jomb ko kon ci mission bi nga ne moom ngay dox yàlla na la yàlla gën a kattanal ba nga gën ko mën def ci doomu aadama yi ndax lépp loolu def ngir yàlla ci doomu yàlla dana la ko fay kon yàlla na yàlla fay fay ñëpp di nuyu ñëpp di balu ak ñëpp temps bi dafa xaw a xat ba noppi toogaay bi yàgg moo tax wax ji du mën a bari ne ko mën ba noppi ñi nga yi ñi nga am réunion boo may xaar ci réunion kër ga encore loolu kon lañ koy gàttal rek ngeen baal màq baal na yàlla sa borom boole nu jéggal muy kóllëre googu yéen a ngi koy sàmm xoolu leen nu ñu mel xoolu leen nu ñu doxee xoolu leen nu ñu taxawe kon yàlla na yàlla guddal seen pan fay leen yu teral leen kontaan naa loolu nag ci li nga xamante ni bi mooy li ma dégg ñu wax ko fi léegi nii muy Maymuna Baaji mii nga xamante ne bi moom lañ tuddee xale bu jigéen bi nga xamante ne bi moo gane si àdduna ndax Maymuna yàlla dafa dogal presque am na fi fukki at yoo xamante ni bi musul daw musul xaddi te gore na ak gëm na jëkkëram fonk na ko am na yar am na teggin teg na ma man place man mii seen mag ñoom ñëpp kon donte ni yàlla may gu ko takk ndeer turandoom bii nii yàlla na ko indil takk ndeer boo xamante ni bi bu ëllëgee ren ba déwén ñu ne may mun a tey lañuy ñuy làngal bésam li def rafet na lii ko njéem a Cissé digal xalaat la boo xamante ne bii day defar diggante ay nit parce que nekk ñu ay wujju may ay mag lañ may mu na nag daf ko fee mérité ndax da ko fee toog xaar ko fi sëy ko fi muñ ko fi kon turandoo bi nga xamante ne bii moom la moom la fi am tey yàlla na nekk njiglaayam yàlla na dund ba ñu ba màgg bañ koy muur muy dem di sëy te it yàlla na doon loo xamante ni bii day gën ci moom parce que wax dëgg fa yàlla man mi nekk ak ñoom de xam naa kan mooy Maymuna yor na jikko yaayam te it baayam ba ñu ko dénkoon di Omar Badji yàlla na ko yàlla xaare àjjana waaye wax dëgg yàlla keroog ba mu ko mayee paa ñu muur ko lan ñu Maymuna xamal ni dëkkatoo fi yow kër Papa Ñang Cheikh Ñang foofu mooy sa kër bis ñi tey man sa baay rek laa waaye paa mooy sa kilifa te mbay mi nga xam ne mooy seen mag moom mooy sa lépp wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla defal gudd fan ñun ñëpp ñu fekkee teraangaam ji te kenn bañ a manqué asalaamaaleykum wa rahmatullah ziar naa leen rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi dellu di sant sunu borom moom mi nga xamante ni moo nu kattanal jox ñu pas-pas ak njàmbaar lépp dañ koy delloo yàlla suñu borom te xam ne moom la su neexoon yàlla suñu borom mu yóbbu ñu ca kaso ba te ñoom yóbbu ca kaso ba gënuñu leen su neexoon yàlla mu def ñu ni mu def ñu am feebaru xel ba nekk ci mbedd mi bu neexoon yàlla mu def ñu na nga xamante ni noonee la wuyu yi nekkee ci mbedd mi di agressé ka dab nit ñi di jël seen alal yàlla defuñu loolu mu xool ni ko neex mu def ñu ko daal di ñuy jox maqaamay rahmatan lil alamina ñu nekk yërmande yàlla ci jaam ñi guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ciy xëy guddi loolu lépp ñu koy sant yàlla sunu borom sant kala nag mooy dolleeku waaye fàtte kala fal mooy folleeku lii lépp nag su amee dañ koy sante sunu jur muy may sa biige ñang ndax doom buñ ne diw baax na dañ naan xool leen ndax baay ba noonu la meloon waaye damay wax ni même bu dee benn jikko sax jàpp naa ni roy naa ko ci sama wuyjur muy tabe te loolu noonu sama wuyjur def na ko ci ñun def na ko ci njabootam gépp sam papa dafa jël ay jikkoom tasaare ko ci njabootam kenn ku ci nekk am lum ca for waaye xam naa ni lam yor lépp mënuñu koo roy ndax koñ bi ba mu daj ñi ko xamoon ñëpp buñ la gisee lañ lay njëkk a wax mooy bul fàtte fa nga jóge xamal ni say wéyjur ñu baax lañ loolee ñu koy sante Fatou Diop ñing mi nga xamante ni mooy ñu meññ di wuy wéyjur bu baax tey nag bu nu santee sunu wéyjur dafay mel ni sant nañ ñi nga xamante ni ñoom la fi bàyyi wax dëgg yàlla kóllëre gi ngeen séqoon ak sunu baay kóllëre googu ba tey ñu ngi koy gis ndax bu leen neexoon ngeen ni seen baay lañ dan andal melu len ni seen baay ñu dug dem suñu yoon waye sam pap bara tax joy ñu may sa biige ñang euh, papa imam moo tax jooy ñu sunu wayjur sunu papa imam Ndour sunu papa yi nek fi yëpp wax deug yalla suñu papa dem yena tax nyu ñu sunu baay ndax kenn ku ngeen gis ci ñun rek yena a ngi ñuy jubante ka gaganti di ñu wo ci diine di ñu jangal islam ta loolu nonu sunu baay bu fi nekkon loolu non la koy defee waaye nag di sant bu baax a baax ki nga xamante ni moo di Mawlana Cheikhuna Cheikh Idrissa Diouf mi nga xamante ni moo ma tàggat tarbiya ma jàngal ma xamal ma teg ma ci yoon may sax ci li nga xamante ni moom lay dox guddeeg bëccëg waaye di sant bu baax a baax ki nga xamante ni moom la fi yebal muy Cheikhuna Cheikh Moustahine Diagne Baye Fall wax dëgg yàlla borom faydu bi nekk borom borom xam-xam yore imaan ak ihsaan yore islaam di ko jàngal jaami yàlla yi nan la ñuy def ba jaamu yàlla ñu ngi koy sant bu baax a baax ak mboolem ñi mu àndal ñoom Baye Jili ñoom Cheikh Mourtada Thiam mboolem daare Miftaahu Salaam ñu ngi leen di sant waaye di santaat bu baax ki nga xamante ni moom moo di sunu mag bu góor bi nga xamante ni tey bu nu jooyul baay mooma ndax wax dëgg yàlla bu ñu ko gisee rek gis nañ may sa biiga ñang loolee tax mu di ñu yërëm di ñu yiir jàppale ñu wommat ñu tette wax dëgg yàlla ñu koy sant bu baax du ñu fàtte benn yoon sunu yaay yi nga xamante ni ñoo tax jooy ñu may sa jooy ñu Fatou Diop ñing muy ki nga xamante ni mooy soxna Adja Niang tey jii ma nga fële ca Dubaay xel ma yëpp a ngi ci ñun waaye di sant bu baax ki nga xamante ni moom mooy awatal di sant sama mag yeeg sama rakk yi bàyyiwuñ kenn waaye plus particulièrement ki nga xamante ni mooy man maay moom te ku ma xool gis ko muy bàyyi sëwru di sama rakk di sama xarit di sama idole di sama référence di sama royukaay waaye nag loolee lépp nag ñu jël cant gi beral ko wa association Ànd Taxawu ñu di ta yalla tax ndax wax deug yalla bu nu yalla suñu borom wommatul won ci liggey bi damay wax ni li duñ ko mën bu boba ñi nga xamanteni ñom lañuy woy ñuy malade mental yi te jël seeni i tudé len bu boba bëd yoy rek lañ len di xol ndax muju ñu fe ñeeku ñu fe judd te it muju ñu fe judd te biñu juddé ba toll ni ñu toll bëd bobu rek lañ doon xol muy bëtu dof yi te lolé noné tawat la damay wax ni tawat bii di wéré di xel képp ku mu dal say mbokk njëkk a génn ci seen bopp bàyyi la sa bopp ngay dox ci sa bopp wax ak sa bopp dem ba wéet ak sa bopp jàpp ne yow rek yaa nekk ci àdduna waaye boo dajeek association an taxawu ñu wéré di dañu lay jël taf la ci seen bopp la ne ci ñun nga bokk ba noppi xamal la sa bopp kon association an taxawu ñu wéré di c'est la solution de malades mentaux ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm borom tur wi nag mérito na ko ndax wax dëgg yàlla muñ na ko fi dund na ko fi kenn mësu koo dégg kenn mësu koo gis ci lenn loo xamante ni du lu yàlla gërëm muy soxna Maymuna Baaji tey jii képp koo xamante ni amaat naa ko ci soxna bu bu xataloon rek kenn du fi xaj bu xataloon rek kenn du fi xaj waaye dafa yaatal moo tax ñëpp yaatu dem na ba moom ci boppam su ma ayee ci néegam sax daf naan ma jugal jugal jugal jugal jugal gaawal gaawal tey moom duma la fi may demal nga fanaani fële ca kër njéeme te nekk lu am solo ñu jël fati ñaabal Balde def ko ci seen biir boole ko ci seen bopp taf ko ci seen bopp xam ni moom mile lii nga xamante ni moom lañ fiy def tey moom lañ ko defaloon jàngal àdduna ñi nga xamante ni ñoo am feebaru xel nañu xam ni feebaru xel febar la rek ni yenen febar yi ñi am siburu gisunu len ci mbedd mi ñi amé tuberculose gisunu len ci mbedd mi ñi amé sida gisunu len ci mbedd mi kon ñu ngi sante yalla bu baaxa baaxa baax di sante mbollem soxna yi rawatina soxna Ummi Kalsum Njaay mom mi nga xamanteni ni nday ji daara ndax ñi fi ñew ñep fi lañ ko fekk kon ñu ngi koy sante bu baax di gëreem ñom nday job bayi wuñ kenn ñom soxna Abi Jaw duñ len bàyyi ñom papa ñang duñu bayi, mama kep ko xamanteni ni rek faqee nga ci faqee nga ci reenu may sa biige ngi lay beral cant ak ngeureum di ñaanal suñu maam lootaloo yalla na fi yag lool ta and ak wër di ñaanal kep waye plus particulièrement Baye Pathé Souma namu nañ ko lool tukki ba mu tukki yag na lool waye bay paté ñu ngi lay xaar ci ñun nga bok nañu andat liggéeyal yalla suñu borom te yalla rek tax non lañuy santé sante Wuri Ba ñom ya Adam. ak kep ko xamanteni ni membre la ci association taxu ñu wéré di ñu ngi leen di sant di leen gëreum a'udhu billahi minash shaitanir rajim la hawla wala quwwata illa billah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 sering pam Niang sunu non non kon nyepu ngi nuyu ñëpp ci kaddu sëriñ bi Seyxna Idrissa di wax ne bu fi nekkon mom moy tewal bopam ndax ñepp xamee nañ ko ak talibem bi di sëriñ pap ñang ci bepp xew bu mu am mom mo daan tewal bopam ci nam gëna yalla dogal sunu borom samedi bi passé mu fekk ko mbuur ci dimanche ja mu jall feulé ca daara ja daru salam lo rek motax teewul ci bis bi mu yabal ñu kon ñoo ngi nuyu bu baax a baax chef de quartier bi euh, sunu papa ñoo ngi lay siyaare bu baax di siyaare imam bi ak mbooleem notable yi nekk ci ak ñi imam àndal ñëpp ak ñi chef de quartier bi àndal ñëpp ñoo ngi leen di siyaare euh, ñun nag suñuy kàddu xam naa ne du ci bari lool ndax liggéey bi nga xamante ni association ànd taxawu ñi wéradi ñoo ngi koy taxawee tey àdduna yëpp ñoo ko waroon def kon képp koo xamante ni daje nga association ànd taxawi ñu wéri di te yàlla tax nga gis leen ñuy def liggéey bu mel nii yow war ngaa bokk te nga leen di jàppale ci liggéey boobu liggéey bi mooy lan fexe ba kuñ gis mu tàqali ko sagoom askan wi boddi ko sànni ko ci mbedd mi ñu jël la amoo ay yére ñu jox la ko nga sol gëj ngaa sangu ñu sang la ba nga set say we gëj nga koo dagg ñu dagg ko gëj nañ laa wat ñu wat la boole koog di la nemmeeku bu fekkente ni suivre nañ la ba xam ne kii li nekk ci moom lu ay médecin mën na faj la ñu jël la en charge di la faj di la faj ba nga wér ñu dellawaat la say bokk te yàlla rek tax nekkul na dañ lay faj ngir soxla ci yow benn dërëm nekkuñ la dañ lay faj ngir ëllëg say bokk fay fay leen benn dërëm ba ci ñi nga xamante ni yàlla jël na leen teg leen ci seeni loxo ñu yóbbu leen ca daara ja fële ca daaru fa sëriñ ba nekk ña fa nekk amul kenn koo xamante ni ay bokkam danañ yëkkati 1000 francs par weer wu dee ne association ànd taxaw way wéri di am leen waaye Cheikh Pape ñang ma leen fa yóbbu ak ànd ak association bi ñoom ñooy wëlbatiku di jënd seeni ceeb di leen dundal di jënd seeni diwlin di leen jox di jënd seeni dàll di leen fekk di jënd seeni mbooleem la ñu yittewoo foofa di leen ko jox ngir jëmmi yàlla te yàlla rek tax kon ñu bàyyiloo xel jam ñi askan wi senegal moo ngi lëndëm na àdduna sax moo lëndëm waaye rawatina réew mi ñu nekk di Sénégal ndax ku mel ni tey soxna si nga xam ñu ngi koy tuddal ki ko fekk ni mel ci mbedd mi ci diwaanu Nioro seexlu woo ko lenn rek moo koy waral ñaare alalu àdduna dañ leen di wax ne boo sëyeeg xelam dem maanaam ab dof wala nga fexe ba sëyeeg mel nangam rek yow bu ma la defalee ñaan gi da nga ci daal di dal. léegi nit ñi dem nañ ba nga xamante ni buntu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in suñu borom da leen koy tëjël li tax moy liñ ko wax du deug dañ na iyyaka na'budu yow rek lañu jaamu iyyaka nastain te yow rek lañu dimbaliko ta fekk lañ koy wax du deug su ko defee moom rek lañu jaamu te mom lañ waroon dimbaliko moy sub suñu borom subhanahu wa taala ki nga xam nekkul ci temps ak espace ki nga xamanteni place yépp dana fi jóge ba jeex mom mu dess nek ni nekké won asaman dana fi jóge ba jeex geej dana fi ba jeex ji dana fi ba jeex lepp dana fi ba jeex yalla dess nek ni nekké won sëriñ Pape Niang li tax mu am xam-xamu mën a ànd ak gaañ yi ci liggéey bii xam-xam bii la suñu borom def ci moom xam-xam boobu nag moom la mag ñi fi jaar ñëpp amee woon sëñ Tuubaa mom la ame woon Cheikh Ibrahima Fall moom la amee woon Cheikh Ahmadi Tidiane moom la amee woon Abdul Qadir Jeylaani moom la amee woon Maam Limaamu Laay moom la amee woon mbooleem gaañ ñi fi jaar moom lañ amee woon kon sang bii di Cheikh Pape Niang itam sa sëriñam bi mu àndal xam-xam boobu rek la ko jox xam-xam boobu mooy lan iman ixsaan tënku ci alquran ak sunna ju wer xam yalla xam gu wer ba nekkato di réeree yalla ci ben fan ba lo gisati jëm yalla rek nga ci daldi di nga ci daldi fek nga mën liggéeyal ci yalla kon nak suñ ko doon suñu gattal kaddu yi moy ànd sant len yeen yeen ñi tew ci bis bi tay ñaax sénégalais yi ñi nga xamanteni alalu aduna mo len taxajuk lillahi wa rasuli nañ ko seet ci seen bop bu fekkon ki ñi dem di tëddee seen rakk la buñ bokkal ndey ak bàyyi ñu fekk mu taqalikook xelam ndax danañ dem tëddee ko buñ gisoon bu fekkoon kenn ku bokk ci seen famille la donte ca maam lañ bokkee mu taqalikook sagoom ba askan wi génne ko seeni kër muy dem ci fat ci garage yi fanaan ndax danañ ko fa fekk ngir ut xaalis ba dem di tëddee boobu dof dof dof bu jigéen boobu kon ki nga xamante ni moom mooy tëddee dof bi jàpp ne dof bi moo dof moom moo dof moom mi koy tëddee ndax bàmmee la koy xaar te ala kulli dana ca jaar te bu fa àggee ala kulli alin suñu borom dana ko réglé kon nañ bàyyi xel alal jaru ko nañ bàyyi dof yi ñuy tëddee alal jaru ko nañ bàyyi nit ñi ñuy yàq dof yi ci ëpp leleen leen yàq borom téere yi rek la kese tar yàq rek ñu ci bëri defal nit mu dof def ko mu dee def ko mu génn kër gi Sénégal danaka li upp ci ñi fi yàq lool kessé ñoleen leen yàq bu fekkon sëriñu tar yàq jeex na Sénégal ala kulli ali doto gis koy dof dof bu taxawal ci mbedd mi motax wala sina amuno yu xaatiluna fi sabilillah waaye wala sina kafaroo yu fi sabili taaxut lam ta tek mo graw fa xaatiloo awliyaa u seytaan mu inna kayda daif kon nag ñooñu nga xam ñooñu yëngut ci taaxut boobu alxuraan daf na nañ leen rey fa qaatiloo awliyaa u saytaan ñooñu ñooy awliyaa awliyaa u saytaan yi tey lu jaam def tey ñoom ñoo ko def loo boo xoolee senegal doo xar kanamam dootoo ko xàmmee ci àdduna bi tey lépp lu fi gën a dox mooy mooy njabar te in si dafa am sayaatinal jinni am moo tax soo demee ci qul a'uuzu bi rabbil naas minal jinnati wa naas foofu la koy tëjee minal jinnati wanaas moom ni mu nekkee ci jinne yi moom sayaatin bobu noonu la nekkee ci nit ñi kon nañ moytu li nga xamante ni tey moo ñuy yóbbu ëllëg safara ndax kenn képp kenn ci ñun doo fi def lenn ba dund fi téeméeri at yu mat sëkk wala ñaar téeméeri at te nit ki yàgg rek la fi bëgg yàgg yàgg te yàggu Sénégal ñoom yàgg gi amuluñ ko app dañoo bëgg yàgg rek yàgg rek te ki nga xam mi bi muy def jëf ji moo ngi am ñaar fukki at dem ëmbal doomi jàmbur joo xam ab dof la xana bayiwul xel ne moom fii ak fukki at mën naa faatu wala fii ak suba mën naa faatu wala fii ak ginnaaw suba mën naa faatu te sunu borom day atte nag fa man yaxmal misxaala saratin xayran yara waaye wa man yaxmal misxaala saratin sarran yara du deseel benn jaam lu toll ni fépp sànq leeñ ci lu baax waaye du ko deseel benn jaam lu topp lu fépp sànq leeñ bala fépp suuf ci lu bon loolu nag buñ ko firi woon ci alxuraan doyoon na sëkk ñu xam ne inal abraari daal la fi nayim wa inal fujaar la fi jaay mi kon nag ki jaar fi yàlla gërëm nayim rek lay mujj muy àjjana ki jaar fi yàlla gërëmul ala kulli an ci jaayim rek lay mujj kon na Cheikh Pape ak association ànd taxawu way wér di ñoom danoo jaar fi yàlla gërëm kon ñoo ngi leen di gàttal kàddu yi foofu ndax kilifa yi toogaay bi yàgg na fa subhaana la si bi yaddi ci kulli sayin wa ilayhi turjoona jërë ngeen jëfati 살짝 또 asalaamaaleykum waa ànd taxaw ñu wéreeti te yàlla rek a tax ma leen di ziar di leen jox seen yéeguwaay kontaan naa trop waa xu Mané yàlla def na ñu ngi ko jëlee woon Nioro bi ñu nekkee moom gis nañ ni mu meloon avant ak ni mu mel après te macha allah yàlla def na ci sutura ndax loolu rek lañu amoon yéene bi te yàlla ñi dimbali ci mbaaxam ñu ci développé ndànk-ndànk te grâce a yéen ànd taxaw TV. ok waaw ba ñuy ko jëlee dañu ànd ak moom dem euh, hôpital quatre bu Thiaroye ñu def premier soin yi bi ñu yeggee ñu ne ñu waaw léegi mën nañu commencer début bi comme euh, malade bi mantal bi dafa yàgg ci moom dafa chronique ci moom ñu daal di ne waaw ñu ne léegi comme dafa euh, nekk en état de grossesse amul benn problème dañuy def début bi rek jox leen yenn quelques quelques médicaments yi su ko defee ngeen jël ko démarrer ak moom. bu demee ba accoucher nag ngeen ñëw ñu continuer traitement bi ñu ne leen ok ñu dem ci grossesse bi tamit dem ci ñoom ma dem Doy macha allah ñuy ñu baax nag ay sages-femmes yu baax ñu jël ko en charge ne ma njéeme kii dinañ ko toppatoo di ko def suivi ba keroog muy accoucher ñu daal di ne ci loolu ba yàlla def tey mu accoucher ak jàmm ak salaam te fierté la ci ñun ñu ngi ciy def luñ ci mën xam ne yàlla ñuy kàttanal ñuy dem ak moom normal. nekk ak moom comme une seur rek jàppale ko te xam ne famille bii moom boo fi ñëwee ñun dañ lay euh, téye comme notre propre sœur ñu nekk ak moom nekkin bu rafet biñ ñu woowee nag fii la déparé ci kër gi Oumy Ndiaye ne ma kii dafa mel ne dafay accoucher ma ne ko ok ci la ñu dem noonu ci hôpital bi bi biñ fa demee moom ak Zosu ak May yàlla def ñu ne accouchement la mu ngi en terme ñu daal di ñëw ñu ne doom bu jigéen la ñu sant yàlla nag kontaan ci torop woo ay parents wam ndax comme ñoom bi biñ koy jël ci seen digal tam lañ ko jëlee malgré mi ngi woon ci bâtiment abandonné mais fa lañ ko jëlee ñu daal di woo yaay ji woo ay sëram ñoom ñëpp ñu ñëw macha allah yàlla def ci sutura nag. il est beau il est gentil et il est ndaxte moom macha allah lu muy dugg bu nekk rek dina ci dem moom ba jeex waaye moom moom bàyyiwuñu benn yoon. kooku aw ma fayam yàlla rek laa koy bàyyeel ñang baalo aw ma fayam tout ak toute la famille ñang tamit aw ma seen fay waaye ci kaw ba ci suuf aw ma seen fay macha allah ñu ngi ciy def liggéey bu am solo ñoom ñëpp a ci jàpp nag mais moom bonheur moom il est le meilleur daal. elle comme une sœur tamit pour moi parce que ñun ñoo ne ci famille bi ñoo fi nekk di fi sëy yàlla boole ñu te sëy moom bokk wërsëg la rek ñu nekk fi nekkin bu rafet. ba ma fi ñëwee ba tey ñu ngi nekk ak man nekkin bu rafet moo tax nag bi doom ji juddoo rek man sama xel automatiquement ci moom la dem avant kenn di réagir waaye bi ñu réagiré noonu moom bonheur ne ma kon léegi nañ ko tudde may ma ne ko amul benn problème sam sant gërëm rek tout la famille ñangeen waaye ak sama wujju Père Thior ma leen di gërëm di leen sant ndax yàquñu dara ci affaire bi te tamit ami internet yi nga xamante ne ñoo ci def seen juróom def ci seen ñaar dërëm def ci seen fukk mënuñu leen fàtte te ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ne yàlla rek lañ leen bàyyeel amuñu seen fay ndax ku def te yàlla rek a tax yàlla rek a lay fay. soxna si jërëjëf témoignage rafet na man la Awa Fall mag ci Pape Cheikh ñaa bokk ak moom ndey ak baay di seen taawu yaay. Pape Cheikh ñaa lii muy def nii mën na nekk. tamsi Birom Gambi mama, mo daan faj dof yi ñi andul ak seen xel seen mama ka daan faj bañ wér mu delo len seeni mbokk muy maamam bi jur bayam mama bi jur yaayam it ku ñu musa jeng bo ñewé suñu kër dinañ ko tekki doxlo ko kon papa Cheikh nya su jëlee ñi andul ak seen xel di len taxawu ba ñu ànd ak seen sago yàlla mën na kaa def yàlla mën na cee def jàmm ma koy ñaanal segam yaay taawu yaay mooy yaay lii mu dugg de yàlla na ci am ndam yéen ni ànd moom di ko liggéey it na ngeen ci am ndam li ngeen liggéey lépp yàlla na ànd ak ngërëmu suñu borom te yàlla lu mu gërëm teg ci loxo te lu yàlla teg loxo rek te bu si jàppee rek incha allah fi ngeen fi bëgg a egg di ngeen ci egg dimbali nit nag moo gën saa boo xëyee julli baa nga woor ndax fekk ku jaaxle toll ci diggante nekk ci tolof tolof war a baa mu yàqu nga di ko dimbali ba delloo siwaat ko ci société bi yow da ngaa jixaat Pape Cheikh li muy def nii jixaat la boo ca boolee nag am diine di jullee ko woor tey sàkk asaka di natt muurum koor dama ni yàlla ngay liggéeyal te ku liggéeyal yàlla yàlla fay la kon lii du hasard du hasard ci Pape Cheikh Niang mi koy def waaye du hasard ci yéen ñi ànd ak moom di équipe boo xam ne yéen a fi nekk taxaw ci te di ko ànd ak moom ba mu sedd kon ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla li ngeen di def yàlla na ko yàlla ful ba àddina yëpp jot ci fu mu bëggee fi ngeen bëgg mu egg fa daal yàlla na ko fa suñu borom eggale di sant sama jabar càmmeñ ñi ci kër gi ndax xale yi mënoon nañu malade mental bu ñëw ci kër gi ñu xatal ko waaye dinañ la sang dinañ la fóotal dinañ la jox nga lekk dinañ tëdd ak yow duñ la daw te duñ la seexlu duñ la ragal kon xale yi ci kër gi di fi sëy am nañu jaaraama ci lii di ñaan nag képp koo xam ne tey gis nga sa bopp ci lii ci association bii ñu def ànd taxaw ñu wéré di rek te yàlla tax na nga ñëw dugal ci sa alal te yàlla tax te xam ne ñu koy defal dañuy liggéeyal yàlla rek te yàlla tax kon ku ci am sa yéene yor sa 100 francs nanga nga ñëw dugal ko ci and taxawu ñu wéradi te yàlla rek tax soo ko defee yàlla rek moo lay fayal boppam wax dëgg yàlla kontaan nañu remercier nañ ñëpp yàlla na yàlla wàcce jàmm ci wàkk Serigne Saliou. alors moi c'est Martha Chepietowska Ba donc Martha Ba sama jëkkër Pël la Ba la sant. Euh, je suis membre de l'association And Taxawu Wéradi depuis trois ans. Euh, j'avais fait euh, une, descente avec l'association euh, à Kaolac. voilà, et maintenant je suis là depuis hier jusqu'à pendant une semaine. Comme je sais que c'est la première association au Sénégal qui s'occupe vraiment, vraiment des, malades mentaux, mais aussi des gens dans les rues, des errants, j'appellerais ça des errants. Est-ce qu'ils sont tous malades mentaux Oui, je sais qu'il y en a beaucoup, mais je sais que de toute façon, cette association, c'est la première. Donc je peux dire un très grand bravo. Et euh, je suis très très admirative de ce travail. C'est un travail très difficile euh, sur beaucoup de plans, mais surtout aussi sur le plan émotionnel, euh, parce que c'est j'ai assisté à, une descente où, où j'ai vu les bénévoles pleurer aussi, et c'est très très difficile à porter émotionnellement. Le reste, bien sûr, c'est fatigant sur euh, beaucoup de plans, mais le contact avec la personne qui est malade mentale, directement comme ça, ça, ça nous touche vraiment au plus profond, nous tous, hein, quelle que soit notre euh, origine. Voilà. Très, très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je pense que c'est une très grande chance parce que moi, j'ai appelé euh, Pape Cher et je lui ai dit que je veux venir pour assister aux descentes pendant une semaine. Et je ne savais pas du tout que j'allais me trouver ici pour le baptême. Donc je pense que j'ai une très grande chance. Euh, c'est merveilleux ce que vous avez fait. C'est très difficile d'en parler parce que c'est tout simplement merveilleux d'avoir accueilli la personne comme si c'était de la famille et, de considérer cet enfant comme l'enfant de cette famille. Moi, je pense que les gens en Europe, ils ont beaucoup, beaucoup à apprendre avec des événements comme ça de la manière dont on peut accueillir une personne avec les moyens qu'on a. Euh, Hamga, moi, voilà, je suis vraiment très très contente d'assister à ça. La question que je me pose, euh, qui est la seule question au fond, c'est hum, est là et je me demande tout le temps depuis hier dans quelle mesure elle, elle est dans l'événement. La, dans la, dans dans, quelle mesure elle est dans l'événement, parce que je sais qu'elle est toujours un petit peu à l'écart. Et euh, je me demande si euh, tout le tout l'apparat, tout ce qui est autour, la tenue, le maquillage, l'événement et la musique, est-ce que ça lui fait du bien Est-ce que ça la fatigue pas un peu euh, Voilà, j'ai je, un contact aussi avec elle avec le regard. Et euh, je pense que voilà, on communique aussi. Mais voilà, c'est ma seule question. Voilà, mais je suis très très heureuse et, et, et bonne fête à tous et demain descente. <laughs> Salam alaikum askan wi maa leen sant yéen ñëpp di len gërëm di gërëm and ñuy taxawu ñu wér di ñi amuñ seen fay parce que ñun bu gisee suñu doom ñi dañoo kontaan ba xamul lu ñuy wax yaayam bi ko jur sa boppam sax dafa kontaan fi ne ba dafa jànnexe man muy aussi noonu par rapport bi ngeen ñëw ñooro ni ngeen ko jël woon dama doon def de mais li ma gis nii nii man man dafa mosuma ko see def xaw ma ko si woon sax ndax dama doon def sama kéemtalaay kattan woon sang di ko jox yére muy sol mais lii nii moom macha allah kenn mënu leen a fay kontaan nañ lool doom bi sax foogoon nañ du baax ba mu newoon ñooro est-ce que dund laa wax est-ce que dana dund parce que wóorut mu amee doom ci bâtiment yi mu nekkoon wóorut mu amee doom ci bâtiment yi mu nekkoon mën na faa am doom mbaam xuuf yi lekk ko mën na faa am doom xaj yi lekk ko parce que danoon fanaan àll di yendu àll suñ ko gisee tey balaa ñu ko gisati ay 10 jours si kanam wax dëgg sant defuñ dara ma di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp di sant sant bàjjeni gox di ko sant lu baree bari yaa di dikkoon moom it mu ngi yónnee ngërëmam di yónnee nuyoowam ak ñoom Fatim Gueye ñëpp ñu leen sant leen gërëm lu baree bari Pape Cheikh moom yàlla lañ koy bayee moo njéeme mee yàlla mii fay yàlla na fayal boppam yàllaa ngi xool yàllaa ngi gis yàlla na yàlla fayal boppam luñ gis barki Cheikhul Khadim. gëmuma ko woon sax gëmuma woon ne sax ne ne daa am doom ne wér na ba am doom gëmuma ko woon sax bi ma ñëwee bi ma ñëwee ba fii laa gis affaire bi ma ne laa man de man mosuma woon a xalaat ne ko na mel nii. ak situation bu mu nekkoon waaye nag kenn du yéen yéen dañ war a gërëm yéen dañ war a sant yéen ñu ko encadré ba mu toll fii waaw yàlla rek moo leen di fay. ay maa ngi leen di sant di leen gërëm di sante di sant eh, di sant di sant yaadi di sante yaadi ak Aïda Diané fi ko jëlee woon ci bâtiment ba indi ko fi maa ngi leen di sant di leen gërëm ak yéen yéenal yéenal gën a laa sant leen gërëm dañ Aïda Diané ak yaadi da leen oo rek ngeen bàyyi seen itte yëpp. ñëw jël si Koudia téye Koudia téye bu rafet euh, téye ko téye bu rafet di ko toppatoo ba mu mel ni nit ñi sant naa leen gërëm naa leen sant naa waa Nioro sant naa leen ñëpp laa sant day kay moom damaa kontaan keroog de euh, uute woon na keroog kay ndax keroog duma doon wax sax jooy laa doon. su ma dund su ma liggéey rek su ma xëyee damay dem liggéeyi su ma amee ma ñëw toggal suma ma doom yi mhm. suñ ma sante fóot ma indi foot ñu fay ma ma dundal sama doom bi loolu laay def de. def xaw ma woon lu may wax waaw damaa wax loo baax lu wax bi ma doon wax sax xaw ma ko bañu wax ne ne suma xel daal dara yooyu ndaxam kaw ma woon lu ma doon wax booba suma xol mu ngi naqadi ak ak ak siyaas ak demee noonu li ma fu ma nekkoon daal xaw ma ko waaye tey daal eh, am naa bégte te suma xel dal na am naa lu ma war a wax xam naa lu ma war a wax suma xel dal na wax sant naa leen gërëm naa ku jamaane daayee naa leen ko ngeen téye ko téye bu baax bu ngeen gisee ku ko mun a yore ngeen may ko ko bàyyee naa leen ko man bëgguma sax soxlaatuma sax muy delloowaat ñooro sant naa leen gërëm naa ndax xam ni ma ko gisee nii kontaan naa trop maa ngi leen sant di leen gërëm li ngeen waaw mi ngi leen maa ngi leen di ñaanal yàlla yokk ko yaara bi uute na uute na keroog keroog li ma doon wax sax xawma ko woon waaye tey tey kontaan naa damaa bég xam li may wax xam li may dox merci beaucoup sant naa leen gërëm leen da ngeen da ngeen defaraale Koudia defaraale man mi ndax am Koudia ni nu meloon nii ndax ma naqadi woon dara safun ma sol yere yu baax safut ma dara fuñ ma gisee ma ngi waxu di dem rek binta ku binta ni binta ni dëkkandoor bi sant ñun ah, wa kër gi yépp la sante gërem dañoo japp jël suma dom ji japp ko kon sen dom wa man nak sante na leen gërem leen te bayé na leen ko na leen de nek de continuer rek mu nek sen dom assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi leen nuyu yeen mbokk jullit jëpp ak ami internet bi waa di nuyu wa kër gi ñëpp. di leen ziar bu baax a baax a baax am contentement ci ñëpp jeeg ji ci kër gi parce que teg nañ ma sama place respecté nañ ma kenn du def te ne woo ummi njaay kaay wax dëgg yàlla jiital nañ ma comme sama njëkkee niñ ma fi jiitalee ñoom it ci noonu lañ toppeek man ba tey jii kenn du def te waxuma ba ci pam ñaa tamit mu aw ma fayam moom tamit dama koy sant di ko gërëm di sant Baye Sëru sama borom kër sama àjjana di ko ñaanal jàmm waaw njéeme tamit ci njéeme laay ñëw parce que ku jël lépp lu ñu def ci moom ci njéeme lañ ko gisee ndax moom moo ko indi seexlu ko jàpp ko comme rakkam bu mu bokkal ndey ak ci kaw lalam boobu lay tëdd day mel ni comme bébé su ko sangee dina ko diw lépp lu xuj a bëgg loolu la koy defal su nee dibi mu daw ne dibi lu mu bëgg mu ne njaay nañ ko defal nangam kër gi fii mu jigi ñu ne ko léegi dañuy ay ay loog yow soo jëlee ñaari fan ñu jël ñaari fan ñu continuer noonu mu nekk tamit koo xamante ni commencement bi daal metti woon na mais instant yi sant nañ yàlla bu baax a baax parce que lii rek lañ doon ñaan te li tax ñu gën a kontaan tamit day tax ku jël mën a defal boppam léppam fi ne mu ngi nàmpal doomam mu ngi ci jàmm bu baax am na doom ci jàmm loolu lañ doon ñaan yàlla dañ koy ñaanal yàlla nag mu eggale ak suñu sago ba lépp lu ñu mébét ci xujja yàlla jàppale ñu ci lool metti woon na mais sant nañ bu baax a baax a baax fi ne dañoo kontaan ba amuñu lu ñu wax. maa ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp nag nit moom du bëgg topp parce que li gis rek yàlla la waaw yàlla defal noonu la sant nag Pape Niang sant ñëpp nag artiste bi àntaak tax ñu rëdd waaw Kodjo moom bis bi nag bett daa bett nag dafa bett loolu nag am na loolu kon sant nag ki xam ne gis ko nañ Ndiémé Cissé sant loolu nag da gërëm ah gudd fante gudd fante wër am jëkkër ju baax te mu mu mën ko si wala kay ñaan yàlla xanaa gërëm leen sant leen rek kontaan loolu nag Pape Cheikh dafa nu rëy man ma sama bopp sax ma xam ma jur mee ma ne man maa gën a kontaan sax woon na yàlla mais nag du ma ko teel a yéex a wax sax man léegi ni la ma woo dama yaay kaay tudd na ma doom ma ko da wax rek mu yaay kaay moo tax a ñëw de fekk ma jóge sandika mu woo ma fat yaay ñëwal dina ma tuddee doom loolu moo tax def nga yaay nga bàyyi ko loolu moo tax ma ñëw la ma ñëwee nii waaye kontaan naa Pape Cheikh bi sama goro parce sama taaw la sama taaw bu góor la nekku sama goro te yàgg naa ko wax nekku sama goro kii bi mag kii yoom yi sama xat la ak sa jaajëf euh, Seydina Aline ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax euh, di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax waaw di wax ni ndam li moom yàgg na ak association ànd taxaw ñu wéradi parce que membre association ànd taxaw ñu di li leen yitteel toujours rek mooy fekk jaamu yàlla yi ci mbedd mi jël leen delloo leen ci société bi parce que ñun loolu mooy suñu mission euh, comme niñ ko defee tey ci kaaw xujja bi nii yaakaar naa ni c'est pas la première fois kon dafay répété waat rek euh, loolu nag nekk bi mission bi nga xam ni ñun moom la ñu porté fekk malade mental yi fi ñu nekk ba jëlee leen ci tolof tolof yi nga xam ne si nii waroon nañ cee mën a ñàkk seen i bakkan delloosiwaat leen ci société bi kon li nga fi gis ñu def ko li ñuy defal nit ñi nga xam ne si dañoo ànd ak seen i xel toog ci biiri kër di ku ci sey ba am yalla may la tout tank yalla may la leer wax deug fa yalla ñu defal la bis bi nga xam ni mom lañu defal malade mental yi sa su ne waaw preuve bi nak du lenn lo ni dañuy xaar ba malade yi genn aduna benn malade faatu wala benn malade auto mbeuk ko ñuy sogo jog di dem ci site internet yi wala di genn ci radio yeeg télé yi di wax mais dañuy avant avant ñuy loru dañ leen ni fekk fi nga xam ni mën leen mën nañ leen fa sauver parce que ñoo def médecin après la mort médecin après la mort nak bari koy def Euh, bu benn malade taw tawte xam nga gaañu wala mu am doom ci mbedd mi ci anam bu metti caméra da ngay gis toujours euh, télé yeeg site internet yi di wax ci loolu noonu di dénoncer mais loolu nag fekk leen fekk leen fa ñu nekk euh, sauver leen avant loolu di am dafa gën waaw kon ñun li ñuy def nii dafa nekk loo xam ne si nii dañ koy def ngir mission bi nga xam ne si ni moom la ñu porté mais tamit dañ koy def ngir jaamu yàlla mais dañ koy def pour jàllale leçon boo xam ne si nii jaamu yàlla yi buñ ko gisee dinañ ci mën a jàngataat jëlaat seen doom yi jëlaat seen rakk yi seen mag yi nga xam si ñoo nekk ci mbedd bi fataat leen ci biir kër yi. ñu nekkee moom ci kër gi wax dëgg fa yàlla duñ ko réccu ndax daa ñëw jàppee ñu mag ñu ne ñu jàppee ko nag xoolee ñu ko bëtt nit ku wéré di wala leneen dañ ko xoolee comme nit njaay ni ñu jàppee suñu bopp noonu lañ ko jàppee ni may xoolee sama yaay di ko xoolee tànjéeme keneen ak keneen noonu lay xoolee ku ja waa kër gi moom seetaan nañ ko wax dëgg fa yàlla dañ koy toppatoo di ko defal lu ne mel ne comme bébé lu mën mag mag mag wala tamit lu mu nekk ci kër gi même comportement bu mën a yor lépp lépp dina changer incha allah ah, am contentement rek kase ndax loo rek lañ ko doon ñaanal di ñaanal bébé may bu ndaw mu dund ba di ko teral di teralaale ñëpp ah di sant association an taxaw ñu wéré di ndax liñ def nii ñu bari bëgg nañ ko te mënuñu koo def yal na leen yàlla jëmale kanam rek Ah, merci. waaw ñu dell ñu sant yàlla d'abord di wax nekk euh, ku nekk gisoon na ko euh, ami internet yi gisoon nañu xujja démb gis xujja tey ñu xamante ne am na changement bu baree bare te yaay yaa njéem a def si liggéey bu am solo liggéey bu mucc ayib vraiment ak euh, waa kër gi yëpp di gërëm waa association an taxaw ñu wéré di di ko tàmbalee ci Baye Pape Niang li ma doon wax sànq rek moo ne association an taxaw ñu wéret yi école la mi ngi jàngale euh, lii daal mooy mooy wane ñëpp ñoo xamante ne am nañu ay malade mental euh, ci seen wet nañu roy jëf ji parce que ci ñun lañu bokk ay nit lañu duñu ay mala euh, feebar bi leen yàlla def defuñu defuñu yàlla li tax mu teg leen ko waaye ñun ñii nga xamante ne bàyyi nañoo ak sunu xel tamit ñu yàlla li tax mu bàyyi ñoo ak sunu xel kon nag dañuy invité ñëpp rek ñu roy jëf bi di kontaan bu baax a baax si bés bi euh, ñu ngi tuubal ñëpp rek ne fii nii xaw na bëri bëri waaye dañ koy comprendre xam nañu ne ñu ngi ci euh, ngénte bi euh, ñu si gërëm ñëpp vraiment seen aleen waaw moo moo tax ñu ne la sànq rek sant bi ci Pape lañ koy lañ koy commencé ndax dèjà suñu borom ba mu wàcceewee xalaat bi ci moom yaa fa susi desu si ginnaaw bien vrai que moom moo ci moom la commencé bu ko neexoon mu ne maay président bi taxaw mais moo si njiitu ñëpp lépp lu si nit di def pap moo la si njiitu euh, mu taxaw si taxawaay bu am solo te du duñu ne gulet jaaroon na fekk moromam ñëwaat jaaxaat si ak xujamaane euh, ñu koy sant di ko ñaanal gudd fan ak wéex di wax rek nañu roy jëf ji. alhamdulilahi rabil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah Seydina Aliou maa ngi lay nuyu di la siyaare di nuyu mbooleem ami internet yu association ànd taxawu ñu wéradi TV rawatina waa assistance sociale bu AATGW sociale ñi nga xam ne ci ndimbal ak yërmande rek la ñuy dox waaye di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ne moo di jëwrin ji di bay Pape Niang di ko ñaanal yàlla jàmm di ko ñaanal gudd fan ak wér. wax dëgg yàlla Seyna Aliou comme ni nga ko waxee noonu la demee ki nga xam ne moo di soxna Khoudia keroog biñ koy jëli fële ci diwaanu Nioro yàlla dogal na yow ñoo àndoon. bañ fa yeggee it wax dëgg yàlla fekk nañ soxna si di xujja di dund ci circonstances yu doy waar maanaam di dund ci jafe-jafe damay wax ne nekk malade mental am feebaru xel rek dafa doy buñ la ci doolelul dara waaye nekk xale ba pare am feebaru xel nekk jigéen itam teg ci loolu rek dafa doyoon tawat waaye mu yokk ci way juram nekk koo xamante ni dafa néew doole lool doon jigéen itam borom këram wàcc liggéey nga xam ne jamono daan na ko jàpp ba moom mi nga xam ne mooy yaayu xujja su ma musaana bëgg am lu mu toggee ci këram day dem fóoti wax ni 4000 lañ koy fay suñ ko fayee 4000 moo kim koy bokkal kenn ku nekk jël 2000 ngir ñu mën a gaaw daw dellu ci seen njaboot ngir 2000 yooyu ñu mën cee waajal ay barkeeloo su fóotul du am lu ñu barkeeloo kon nag euh, ndax dëgg yàlla waajur boo xam ne day xëy dem di uti lu mu jox ak njabootam doon jigéen néew doole yàlla teg ko nattu mu am doom joo xam ne malade mental la dem ba xujj mi daan fanan ci bâtiment abandonné ci mbedd mi deug yalla kérok bi nga xamanteni dem nañ fekk xujj sen buntu kër ak gis ko ak melokanam wax deug yalla amon nañ luñu metti lool ci suñu dundu bañ fa joggé jaar nañ fi nga xamné moy bâtiment bi nga xamné fa la daan faral di fanan mu leer la né ki bu andon ak xelam bu doon goor sax ñemewu fee fanan waxuma la mu doon jigen kon mu leer la ne febaru xel nak ak ni def doomu adama kenn ku ci nekk ak ci li feebar bi di xiirtal moom feebar bi da koy xiirtal ci muy fanaan mbedd ak di fanaan ci àll bi moo ko doon poussé muy dem ci fanaan ci bâtiment boo xam ne boo ñu fa yóbbu woon ñun ñi kenn koo bàyyi ñemewu faa kon feebar bi moo ko daan yóbbu foofu waaye ci biir feebar bi ci la ay jaamu yàlla daan dem di fekk xuja foofu di ko sàkku ba tey nattu bi dal ko maa ngi wax ne képp koo xamante ni yaa ngi jëf-jëf ji li ci ëpp ci li ñu remarqué ci réew mii ñu nekk utum alalu àdduna mooy tax ñu di ko def ndax ñu ci ëpp ñi leen koy digal rek mooy ñi ñuy faral di woowee du ma leen sax woowee sëriñ mais ñii sëriñ sëriñ lu xaw ma ay sëriñu tariyaax lañ koy tuddee xaw ma nuñ koy tuddee ñoom ñooy faral di digal yenn doomu aadama yi nan leen soo fexee ba sàkku malaat mental bu jigéen sa buntu wërsëg mën naa ubbeeku mën ngaa am lii wala su fekkee da ngaa am loo yootu mën nga koo jot alors que nit mënta jot dara ci sobe nit mënta jot dara ci mooy yàlla nit mënta jot dara ci kaw suuf ci lo xamne yalla sun borom bindu ko ci aw jëm kon nak lool limi wone rek moy nit ñi ñoo ñak ngeum seen borom ñak doylo li leen seen borom denk ba tax aduna jaral na leen lu nek damay wax ne yow mi gont fan yow mi gont sakku ji malade mental bi ndax woor la la ndax guddii gogo di nga fanaani bammel am deet ñi ci bare bare bare li leen yobbe musiba yowmal khiyam moy rafet njort parce que am na ñoo xam ne si seen ñeen fukki at jàpp nañ ne dinañ dundaat yeneen juróom-ñetti fukki at teg ci loolu dal xel la kenn ku ci nekk ñun war naa xam ne war ngaa jaamu yàlla sa borom ba yaakaar ne tey nga fi bawoo waaye war ngaa nekk ci sa bopp ba mel ne dootoo fi jóg kon nag jaamu yàlla yi dañoo war a bàyyiwaat xel di jaamuwaat yàlla ci jaamam ñi waaye moytu ax xam ne amul kenn ku nekk ci kaw suuf ku mën a def lu tax nga rëcc yàlla déedéet yàlla du muñal kenn da lay mujjee parce que tôt ou tard dinañ tew ci kanamu suñu borom kon nag euh, wax dëgg yàlla dañ ci sante bu baax a baax ñi nga xamne ñoo di ay way juru xujja ginaaw bañ fa démé nangu giñu nangul waye di sante wa ñoro gep ngir kérok seen taxaway dafa mel ñom ñoo jur xujja ñom wa ñoro gep dañoo juk taxaw wane ni tay li nga xamanteni mo dal xujja ñom rek suñ tégon bëtt ki def amana association bi du ci jot waye nak rëccu leen ñu ndax rëccul yalla suñu borom kon nak yene biñu amon ci mom moy kéra bañ ko fa fekkee xam ni jigéenu wérul dafa lacc xool dafa laaj surveillance dafa laaj di bàyyi xel bu ko dara jotul sax waxuma laa jigéen boo na xam ne dafa nekk jigéen wéru ba pare nekk malade mental ñu xalaatoon ni kii li nga xamante ni mooy toppatoo bi war ci moom suñu xel dalul ngir ñu bàyyi ko fa te bëggoon nañ koo sauver sauver doomam te yàlla rek tax loolu moo taxoon Baye Pape Niang jël ay responsabilités jël ay engagement ñu jëlee ko Nioro andi ko fii ci kër gi teg ko ci loxoy ki nga xam ne mooy soxna njéem Cissé wax dëgg yàlla ñoom suñu jigéenu kër ñu bay ci am solo damay wax ne xujja Kujakir kër gi yëpp la ndax ñaari fan lay def ci kër gi fi def ñaari fan kër soxna ñëmé diir bam fi ñëwé ak légui Seyna Aliou amna na soppeeku bu baaxa baax ndaysan su xuja bam fi doora a ñëw mënul woon lekkal bopam manam su ma saana tim lek da ka daan taxat taxate dagate jëni sanni li fi sanni lee fee waaye wax deug yalla suñu jigen wa kër veye ci diko tek tal diko tette ba tay ji ñun ak mom ñoy bok lek waxon waxuma la sax loxo lay lekke waaye kuddu lay lekkee kuddu bi ñuy añee lay wax deug yàlla suñu waa kër tette ku moom changement bu maga maga maga a mag a mag Aliou ba tay ñu doon ñaan yalla ñaar ci mom biñ ko fay jëlee moy bis buñ koy ci wat ay mbokam fekk yalla suñu borom may ñu ci ndam moy ñu fajj ko bam mu ci wat ak xelam waaye ku ne xam ci jamono biñ koy teg loxo jigéenu mën tan naan garab yi nga xam mom mo wara suivre traitement walu xel bi lool motax tax guñu won ci lu jëm ci walu xel bi dañoo nekkon rek di japp di ko jàppale ngir yalla may ko tawféex te keroog bi nga xamante ne suñu borom dogal na mu matu ci guddi gi suñu waa kër def ci pasteef yeema ñu dem yóbbu ko hôpital mu am doom ci omi sedd guy comme ni ko ñëpp doon ñaanalee ñu koy sant yàlla suñu borom bu baax a baax waaye di sant di wax ne mention spéciale a Baye Pape Niang ci liggéey bi nga xam ne defati na ko tegati na beneen doomu aadama loxo. ñaanoon ci yàlla ndam mu mayegum ñu ndam ci premier pas bi li ñuy tàllalaat yàlla suñuy loxo rek di ko ñaan mooy nim ñu suturaalee ba xujjëm mi am doom ci jàmm ak salaam gaañuwul fenn opéré wuñ ko indiwul benn jafe-jafe amu ci benn tolof-tolof ñoonu la ñuy ñaanee yàlla suñu borom ndeem nag ñu ngi jublu ci xuuja ba mu fi ñëwee ba léegi nag ci ëmb bi rek lañ nekkoon waaye à partir tey dañuy jublu nag ci xuuja ngir lan bëgg nañu moom mii yàlla suñu borom may ñu ci ndam mu dellu si waat ak sagoom ndax ñun diir biñ nekk ak moom xam nañ ne ku ko topp lu mu gàtt-gàtt xujja mii ku neex a delloo si waat ci société bi la ba ñëwee ci kër gi ba léegi malade mental la musul ruube kër gi musul xeex musu fi saaga kenn bu amee lu mu soxla da koy wax directement ndox lekk lu mu bëgg da koy wax bu xëyee fi mu toog ma na toog ba ngoon jot bu nit ñi di kaf mu kaf bu nit ñi ree mu ree su ko neexee mu xëy ñëw toog du wax ak kenn mais dañuy xam ne àndandoo mooy def loolu ñu bàyyi koog boppam su heure kafam jotee def kon suñ ko tegee loxo lu mu tuuti tuuti rek yàlla suñu borom mën nañ cee may ndam ñuy sàkku ci képp koo xamante ne yaa ngi ñuy seetaan nga ñaanal ñu yàlla suñu borom may ñu ñu teg loxo xuj jëmmi ba delloo siwaat ko ci société bi mu àndaat ak sagoom ngir bu fi jógee mën a jëriñ njëkk ay doomam mën a jëriñ njëkk way juram mën a jëriñ njëkk askanam waaye mën a jëriñ askanu Sénégal yëpp ñu di leen bàyyi la waat xel ci ne malade mental yi ci ñun lañ bokk képp ku ci am bokk yàlla suñu borom teg ko nattu ngir jëmmi yàlla ak yeneen bi teg ko loxo ni ko yàlla suñu borom tegee loxo ngeen bañ leen a beddi bañ leen a sànni bàyyi njaga mbay nee na daw ko wéré di bul ko daw ba mu xam ko ndax mën naa yokku la ko metti séena laa tudd femme la sage-femme d'État au poste de santé Aïnoumady Sotrac waa tey moom lu waral suñu teewaay fii mooy Khoudia dafa nekk nit koo xamante ni dal na xam nga tey jii am na ñoo xamante ni mel na ni moom te daluñ neexuñoo communiquer mais moom bi mu ñëwee ci ñun dafa dal vraiment amul problème ba pare nag ñun tamit jàppale nañ ko ndax bi ñu ñëwee wax ñu seen soxla dañ leen jàppale te loolu mooy premier mois mooy liggéeyu sage-femme liggéeyu sage-femme mooy jàppale nit ki ci wàllu faj bi mais tamit ci wàllu lépp social ak lépp moo tax nag bu ñu gisee ñu mel ni moom ak ñeneen ñi nga xamante ni sax meluñ ni moom mais seen ay doole tollul nen ñi dañ leen di jàppale donc nag ci jàppale boobu si lañ fasante kóllëre ba nga xamante ni ñoom tamit ñu am kóllëre wóolute aussi kontaan ci ñun tamit li ñu leen defal ñun ñu ah bësu xujja bi moom bu dellu see incha allah na ngeen ñëw ci tudd bi moo tax lu ñu jàpp rek dañ koo bàyyi ñu daal di ñëw ci bësu xujja bi. moom dama ci faral di wax te dama koy sawar aussi di ci wax gis nga nit ku nekk da ngay jàpp ne sa bopp rek tey ji xujja bu ma ko jàppee ni man la ma jàpp ne fii mu toog nii man mënoon naa fee toog wala sama rakk wala sama mag donc loolu boo ko jàppee rek koo gis ak mu xelam demag mu nekk feek lépp danga koy jàppee ni sa rakk wala nga jàppee ko ni sa mag bu ñu defee loolu rek Sénégal dina jëm kanam vraiment nañu jàppalante surtout jigéen jigéen moom mooy lépp jigéen moo yor lépp jigéen ñi bu ñu defaree suñu xol yi ki nekk nga jàpp ni kii kat maa moom ñoo bokk deret ndax xam nga tey jii bu ma bokkook moom deret du ma ko sànni lu mu métti métti dinaa ko fab uuf ko léegi nag moo tax ku nekk rek da ngay xoolee noonu jàppe jàppale ko ñu gën leen a jàppale bañ leen a ràngati ah koo jafoog ne que ni xelam dal na rek xam nga des fois ñun ñooy ràngati nit ñi dañuy kii jàpp ne xelam dal na rek ñu commencé bëgg koo def muy nekk suñu reetaankat waaw bu ñu bëggee ree woo ko loolu nañ nañ ci bàyyi xel ku nekk jàpp ne moom rek kat mënoon na toog fii wala yaayam wala rakkam wala magam eh. waa di leen sant aussi di leen gërëm di wax tamit waa association ànd taxaw ñi wëree di tamit vraiment li ñuy def rafet na rafet na trop man des fois dama leen daan suivre ci YouTube bi mais vraiment gisuma ci lenn loo xamante ni dina lu luy avancé loo Sénégal rek laa si gis parce que ngay gis ku nekk si mbedd nga jël sang ba mu set nga defar teg boole si sa biir loolu nit ku nitee rek ak borom xool moo ko mën donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm si loolu di wax ñëpp rek ñu jàppale leen aussi parce que association bi vraiment association bu am am solo la ok jërëjëf. jëf man aussi maa ngi leen di nuyu di leen ziar man maa ngi tudd madame Ndoye Ngone Fall man maîtresse sage femme la poste santé Aïnou Mady Soutraye district de Yeumbeul. waaw ñun buñ ñu ko njëkk a indil ci visite yi xuj ku ñuy wax jéeme moo ñu ko njëkk indi indil ci visite yi waaw bu ñu ko indilee mi ngi mu fekk man ak sama assistante bi muy Mariama ñu toppatoo ko nag comme une personne normal ndax tamit ki nga xamante ne dafa am feebaru xel aussi am na droit ñu seet ko am na droit aussi ñu visite ko am na droit aussi ñu seetantal ko li li personne normale am lool la am droit kon ñun aussi dafa ñu lu suñu liggéey parce que loolu la ñu jàngal depuis l'école

depuis jour boobu ñu ko defalee carnet lépp dafa gratuit ñu jàpp ci bu baax a baax a baax comme bu nekkoon suñu doom ndax comme ni ko njéem a def noonu tatagal ko indi ko gërëm di dëkk ak moom nekk ak moom ñun aussi en tant que sage femme am nañu wàll wow moo tax ñu def ko parce que suñu rôle mooy accompagner mooy aider mooy jàppale loolu mooy premier rôle lu sage femme loolu moo tax ñu sawat ci mu neex ñu torop suñu xol aussi hôpital am na benn xol yërmande bu yàlla def ci yow kon nag xol yërmande boobu damay ñaan yàlla yàlla nag yàlla tàppe xol yi defal koy bépp agent de santé de telle sorte que ñun bu ñu gisee malade mental yi nga xam ne yéen defu leen santé xam nga ñun dañu def santé ñu tàggat ñu ay ati ati at foot suñu xol comme comme yéen bu leen ñu ko indilee ñun tamit ñu jàpp ci bu baax a baax a baax ba li ñu bëgg ñu am ko mooy tey jii li ñu bëgg ci xuja am nañ ko mooy am na doom sant nañu yàlla ba ñu invité ñu ci ngénte li xam nga loolu vraiment suñu carrière lu ci neex la ndax d'abord njéemee njéemee mi ko indi c'est une personne vraiment boo xam ne yàlla da koo baaxee ndax du ñii du du nii ñu mel nii du ñëpp ñoo mën a dëkk ñoom kon njéeme bu mu amee xol tamit ak association ñu dañ koy ngénte tamit lu ma rafet lu la lu ma rafetlu mais lu ma yéem la lu ma yéem la parce que moo ngeen ko assister ba mu am doom rek ngeen bàyyi mais di ko ngénte di ko jàppale di ko jéem a réinstallé ci soci réinstallé ci société bi loolu moom vraiment rafetlu naa ko moom macha allah. kàddu mu mujj daal di sant yàlla di ñaan yàlla xol bii ngeen am yàlla na ko Sénégal gépp am parce que ñun Afrique ñun li ñu xamoon mooy fraternité mooy jàppalante. te loolu dañu seetlu que nit ñi actuellement jamono bii nit nañu xaw a wéet nit ñi xaw nañu wéet jàppale manqué na waaye comme yéen ni ngeen ko defee yàlla na yàlla may ñu ñëpp xol boobu bañ koy defee nii. parce que xujje mi kat tey jii yaakaar naa bu fekkoon tam ci fameem la ne duñ ko defal duñ ko defal plus que cela kon nag maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di sant tamit xujja mi nga xam ne à travers moom laa leen xamee macha allah maa ngi koy rafetlu xamee bu bu baax.